di ko wax ni ko. dafa dégg ne Turquie. dafa dégg dégg ni Turquie. réew ma dafa am zilzal bu métti bu fa am. nee na ma dafa am zilzal bu métti bu fa am. mooy suuf su yëngu. waaw te loolu mooy suuf su yëngu. mu bokk ci la nga xam ne. mu bokk ci la nga xam ni. suñ borom da ko daan nattoo bu njëkk. suñu borom da ko daan nattoo bu njëkk. wala mooy ci alag wala mooy ci alag aw xeet. nee na. فجعلنا عاليها سافلها فجعلنا عاليها سافلها nitu yonte yàlla luut nitu yonte yàlla luut de day bañ doon def seen jëf ju ñaaw ja ba ñuy den seen jëf ju ñaaw ja bokk na ci la suñu borom alage bokk na ci la leen suñu borom alage hisatul ardi nag hisatul ardi nag bokk tak silsaan bokk la silsaan lii nag moom silsaan la nee lii nag moom la moom te mooy li féete woon suuf te mooy li féete woon suuf dem ci kaw dem ci kaw la newoon ci kaw i suuf. sëriñ bi am ci ñoom yërmande. ne sëriñ bi nag am ci ñoom yërmande. fekk damaa ñooy duggaat fii rek. bi may duggaat fii rek. boobu dugg naa ci biir université. boobu dugg na ci biir université bi. la ma waat ne la ko waat ni ko. ne ma mbirum sëriñ Tuubaa ni ko mbirum sëriñ Tuubaa kat. li mu seq ak lislaam. li mu seq ak lislaam. bokkul ak li nguur gi def. bokkul ak li nguur gi def. suñu waru suñu waru gar kon suñu waru gar ci diggante jullit ak morom ci diggante jullit ak morom ja ak taxawaayu suñu tubaa ci ñun jabooti ak ak taxawaayu suñu tubaa ci nun ñi mu jabooti nun ñëpp eh, damaa bëgg jël téeméeri million damaa bëgg téeméeri million jox la ko nga yët leen ko jox la ko ma jàpp